ربنا ولك الحمد waaw yow jam bambala kooku da nga koy السلام عليكم ورحمة الله di fàttali sama bopp di fàttali mbooleem bopp ku ci ne rek ak sa yënguwaay ak sa tolluwaay noonu rek ngay doxee waaye dañuy war santaan yàlla ci bu baax ci xay na moom nag ku bëggee ko amee woon mm-hmm. nag lu gën rek lay def mm-hmm. ndax am naa yaakaar ne dañoo ko fii mm-hmm. yaakaar naa ne di leen wax dara xam nga yaakaar naa doon ko incha allah da a ndax bisu tey jii moom bisu mbégte la. ñun ñëpp nañu ko leen mbégte rek. bisu mbégte nag moom nañ ci nangoo jaay baax a baax a baax te di ci dundal sunna seen bopp sallallahu alayhi wa sallam te jégalante bàkkaar yi ñu ñu fàttali ko suñu borom ngir xeewal bi ñu def ci ñun ak tey nga leen sant yàlla nag weesu wu nangoo jàmm yàlla te teg ko ci sunna seen bopp sallallahu alayhi wa sallam te mooy suñu ko tere yi suñu teg kàttan te tontu ndigal bu baax. te mooy ki ak tooy ak tooy baaw ginnaaw maa ngi déggal sama bopp di dégg mboolem mbokk ak lépp noonu booloon ñu doon wenn say bañ a tax bañ a tax seytaane suñu diggante nanu bëggante nanu soppante nanu wóolante yàlla rek tax kenn ku nekk jàppee moromam ni boppam ñu bañ a kenn bañ a jàppal moo gën kenn ku nekk na nga def sa bopp nga def ko sa bopp waaw dañoo wax ne gën moom bu tey yaa ngi jàpp ne yaa ko def nit na la wóor ne kooku moo la gën ak kooku lu mu xeebu xeebu xeebu ak sa daal yow man tool yow nga jàpp ne kooku yow gën kooku da nga daal di xam ne nag kooku yeeg yow moo la gën ak kooku ba man kooku lu mën a jóg boo jàpp ne yaa ko gën rek jàpp ne kooku moo la gën suñu borom subhanahu wa taala dafa minkum yuri dunya wa minkum yuri al-akhir nit ñi ñaari xaaj lañ ñi aduna rek moo leen ñor mooy seen bëgg ñi ci desit alaxira rek moo leen ñor mooy seen bëgg ki nga xam te ni bii nag aduna rek moo ko ñor suñu borom wax na bëggam koo bii la ko ca mën a fekk koo jox ndigal dana di nga moo ba ko suñu borom diggalee ne ko ren des ndax dem ba nekk mag amoo doom dem ba màggat soo ko am benn doom rek nga gis ñun la ko nga am pas-pas mu mën koo daal di jëfandikoo ndigal loolee loolu rëy na waaye doom it ni mu ni mu ni mu neexee ci wajur bu jigéen ni ko wajur bu jigéen di fonkee fi ñu koy teg mu ni ko suñu borom kat nee na sa kii naa ko rendi eh. mooy mu mën am xolu nangoo jëfee ndigal loolee ne ko ah defal la suba digg ndax sa xar bi kat rendi ko rek buñ la ko waxoon tey di jàng nga salaat ak dégg yëpp bu ma naan doomu aadama ko xam ne sa doom la ñu la rendi ko nan nan koo jëfandikoo suñ borom waaye li ci gën a yéemeet mooy xale bi mu wax ne suñ borom nee naan rendi ci am di nangu ne ko defal la suñ sama sa sa borom digg ma man noonee mu daal di tëdd jël paaka ba teg ba dawal suñu borom di rocce ko ci diggante bu gaaw gaaw ndax moom ci diggante kun la nekk ak feeku donc nekk nekk diggante boobu la ko nekkalee nag def fa xarma muy mbir mu gaaw a gaaw loolu nag képp koo xam ne yaa ngi dundal tabaski comme na nga ko na lu wóor na ji yi mu wekk si maam Ibrahima amoon suñu maam Ismaayil daan ko def na lu góor ne yii woowee nga jeex kon li muy xumb xumb di bëri ay rajo lépp nañu xam ne sunna su am solo la te yii wu bëree bëree ci nekk tiyaaba ju bëree bëree nañ ko gën a fonk bu baax tey ko te gën koy seetal te xoolaat ñu koy defee bu baax baax. ko fekk gàllankoor koy fekk waaye ku xam njëriñ loolu nu mu toll nag tant que mu indi tuyaab bi ci nag ku xamoon ba tolloo ba dina di ko doxal ndax tuyaabal looy am tuyaabal moom xam nga ne yaa ma njëriñ doomu aadama nga jël kon loolu ñu ngi ñaan nga yegg suñu kanam lool te bàyyi la xel ñaan suñu borom xëy xam nga kon loolu métti la woon kon loolu Mbàkke bu ñu ko jaanee tey bu amee bés bu leen tey nañ ko def mbégte nga xam la mën a def kon nag itam ma def waaye du daal ba ilaa yom fi ndax lu baax lu baax rek lay wet lu lak morom mën ay seet kon loolee da suñu xel daal suñu yaakaar gën a dolliku xam ne Cheikh Anta bu ma leen demal dolli sama jëm nga nekkal ma baari sama jëm bopp kon xam na loolu du asar ba ilaa yom fi din da ko dund ba sax ñu di ko dund am rek am yëg man sama kàddu yëpp nii la rek dama ne daal bu mu ne la am yëg doomu aadama daal bu amee yàlla na mënal ko lépp yëg nag moo ko amee ñàkkoo dara ndax àdduna day bërit la rek loolu nit ki toog ci loxo bi laa yomb di na nga gaane àdduna nekk ci loxo boo delluwaat suñu borom ci loxo ngay yor kon nit mën na gën loxo bi laa yomb di kon ñu delluwaat taalibe yi dañ fi delluwaat suñu laxasaay xam nañu bokk doo daanu wala ñu leen ci fas ne dox tànk yi nga xam ne tànk la tànk tàngal a wàcc ah, taxaw taxawaay boobee kon Mbàkke taxawaay bii ala lépp lu ci am nag nañu xam ne fay nag ay jaar-jaar la waaye ay kiraama mënu ca ñàkk fee kon sa tolluwaay ndax bu fekkoon ne ay bobor wala ay fetel wala ay jaasi Eh, bu doon luy lor rek lu leen di lor ba ni Serigne Touba waxee si kon ku Serigne Touba di sa maam kon loolee wartaa nekk loo xam ne warta yéen kenn war mu jaaxal kon Mbàkke loolu dañ ci wax kon loolu ak sant yàlla lañ koy def la mucc lu woon boo déggee ñu naan alhamdulilahi ñetti xaaji cant muy sëñ Modou Tine mi wax na ko léegi xar mi nga xam ne moom la ñu Ismaïla mi nga xam ne moom lañu ñu waroon a def tamit dafa ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax mucc ba mu mucc ismaila ma nga xam ne moom la moom moo moo ne alhamdulilahi rabbil alamin xar ma nga xam ne moom la ñu mën wut ismaila ne alhamdulilahi rabbil alamin waaye malaaka jibril ma nga xam ne moo waroon a wuttale ismaila ak xar mi war tëral ko bu yéexoon loolee suñu borom pare kon kooke itam dañ alhamdulilahi rabbil alamin loola waral ñetti xaaji cant kon cant yooyu nekk na cant yoo xam ne Mbàkke dañu koy def tey ci barab bi nga xam ne moom moo moo fi xew ay kiraama yoo xam ne la ko sabab warta jaaxal kenn Mbàkke ah ñun bokk ngeem ñun li nga xam ne moom la ñu nàmpal te ñu ci te ñu gis ko suñu bët yi loolu mënuñoo jaaxal kon Mbàkke loolu dañuy gën a ñaan sa borom guddal sa fan ba li nga xam ne moom la maam Cheikh Anta naal ba teg la ci barab bii nga war na ko ci baari ndox na ñëpp fu ñu waay toll di ko gis takk-takk bi nag mooy ceeñaar ba mu nga nali bàyyi ndongo bu doon wax ne ceeñaar bu jolli ci lëndëm kenn du ko dëgg man diggal mooy daara jee nga wax ne moom moom moom la ñu war a taxaw daara joojee la koy sabab yaa ngi ciy dox guddi yaa ngi ciy dox bëccëg ñi ci war a sëriñ Saliou mi wax na ko dañoo war a laxasuwaay feddiliwaat kóllëre feddiliwaat laxasaay ndax ñu mën a jàngalil xale yi ba dëñë bi reen am nga la saytaane wala iblis génn ci réew mi ndax lii lépp taxam waaye nag la Sëriñ Tuubaa di wax ca xasidakum laa tastari dunya bi uxraa yaa fata man baa nuuran fii dunya fa sa yandamu boo jaayee sag leer jënd ko ak lëndëm ba te boobaa rëccu nga ciy jël kon nañu te dënn Sëriñ Tuubaa bañ koo yemale kenn te xam ne Sëriñ Tuubaa rek waaye beneen yoon woo mën a aw te wutut yoonu Sëriñ bi mën nañ ne leneen mën na ci kon Mbàkke li nga xam ne moom ngeen ñu nàmpatal li ñu ca teg li ciy dox nga di ko taxawee fii ci tund baay ci jëw ci sa jëw mbàkke loolu kaddu kaddu tànk yooyu yàlla yàq ba li nga na ma def ci baari ndoon nga def